Yeah.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 day ñaan suñu borom bi tabaraka wa taala mu nangul ci suñu jaamu yàlla di ñaan tax suñu kilifa diine yëpp suñu borom tabaraka wa taala defal leen tawfiix may leen fan wu gudd may ko mboolem jullit yëpp mbokk yi ni ñu leen ko dégge woon tey itam dañuy ñëwaat ci benn émission boo xam ne dañuy mott li émission bi ñu fi defoon te mu doonoon Sëñ Tuubaa weeru gisoon nañoo wax ci émission boobu sëñ Touba ni mu jàppe woon weeru koor ak gëdd gi ko joxoon ak solo si mu ko joxoon tey jii nag ñu bëgg a waxtaanee sëriñ Touba ak jagle yi nga xam ne yàlla defal na ko ko ci weeru koor xam ngeen ne suñu borom bi tabaraka wa taala euh, ci yërmandeem ak baaxam day def léeg-léeg saa yu jamono rëbee mu tànn ndaw loo xam ne mooy dellusi si ci jullit ñi euh, fàttali leen seen borom xalaatal leen sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teete leen teg leen ci yoonu mucc loolu nag sëñ tubaa da cee bokkoon ca ñooñee nga xam ne suñ borom tabaraka wa na leen mu mel ni nag ci weeru koor la jote woon autorisation def loole xam nga dañuy wax ne wa daaiyan ilallaahi xëy na yomb na woote jëmee ci yàlla waaye nag bi isni yi nga ci ndigal yàlla mooy li ñëpp amul sëriñ tubaa nag wooteem bi mi ngi jotoon ndigal li ci weeru koor loolu mi ngi woon dëkk bu ñuy wax Mbàkke Kajoor ci cent 1302 hijriya kon weeru koor nekk na loo xam ne sëriñ bi bari na ci ay jagle moom sëriñ bi sax moo ko bind foofu ci Mbàkke Kajoor fa la ko yonent bi sallallahu alayhi wa fekk ne ko Ahmadu mu wuyu ko mu ne ko woote bi yi ngay woote di ko yàllu biral ko waxal ca kaw ñëpp dégg la nga woote ndax yow yaa war a xeet li jaam yi moo tax mu wax ne yàlla woote loon na ma woote naa ku wuy si wàcce nga maa ci des yàlla woote loon na ma woote naa ku wuy siwul wàcce naa yaa ci des woote boobu nag mi ngi amee woon ci weeru koor ci fan yu mujjee ñaar fukki fan yaa juróom-ñaar ci dëkk bu ñu wax Mbàkke Kajoor sëriñ bi bind na ko nee na wa min ajaaib ibni abdillahi sala alayhi bi salaamillahi باخ أضاء أرضه بالأولياء إلى الخيامة وكل وليا سنته وسانه عن بدع تفسيره قديمه بفسد لبوك يعني نتي كين تاني ينتبي صلى الله عليه وسلم بابا ساجي تاو جامل جو نيك ريك كان نكو كو خامل ينتبي صلى الله عليه وسلم لا يري كان نتي أولياء الله دا نيو سوف ليرال سوف نينا نك بوك نتي كين تاني ينتبي صلى الله عليه وسلم نك بيغل جيمو بيغلي man ahmadu ne ma fasda bi ma tumar mu ñëw tuñanteeg man ne ma ahmadu ma wuyu ko mu ne ma njëmbeerul woote bi woote la woote bi loolu kon mi ngi amee woon Mbàkke Kajoor xoolal wooteem wooteem bu rëy ba nag daal di woo waa daara ji yëpp ñu teew mu ne leen képp koo xam ne ah, jàng rek moo ñu yor ak jàngale loolu rek mooy mooy sa bëgg-bëgg demal ku xeetoog loolu àggale la ngay def fekk képp koo xam ne li ma ñor ak yoon wi ma jaar te moy defar nit ginaaw bu ko jàngalee ba noppi defar xolom defar ciiram marale ko boromam képp ko loolu ñor nak man nga tok ci la la bari demee ñi ci dess dess fa kon loolu mi ngi xewoon ci Mbàkke kon ñoru murit ci wëru koor la ko yalla taxawale ci la Sëñ tuba jote ndigal li kon loolu tem ci jagleel gi suñu borom jagleel eh, suñu Seexul khadim ci wëru koor la bokk bokku na ci ay jagleem tam bam mu fofu ñew ñëw yagu fi sanc darussalam yagu fi tam mu ñew ci Euh, Touba dëkkam bi tubaa dëkkam bu tedd bi mu sanc ko ba mu fi sancee ci at yu mujj mi fi nekk weeru koor rek ko fi mujj fekk sëriñ bi ni ngeen ko xamee ci nim daan dundale weeru koor ci li'tikaaf te mooy fukki fan yu mujj yi nga wéetal ko sa borom tabaaraka wa taala di ko jaamu di naafila ak di jàng alquran ak di wéetal yàlla foofe ci jàkk ji nga xam ne tey moom la ñuy tuddee jàkk yi Daaru Xuddoos te mu nekk fii ci kanam bayti dañ daan ko gën a miin ci jàkk Serigne Mbacke Madina ñu jàkk daal xulus foofu la duggi woon xalwatu boobu intikaafam boobee fa la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo waat ba ko fa feeñoo tam ànd ak ahlu badrin booba ba ko si ba mu gisee sëriñ bi sëriñ bi gis ko sëriñ bi xamal ko ne ko damaa bëgg a bokk ci ñooñu nga àndal euh, sallallahu xamal ko ne ko loolu fàtt naa ndax li koy maye moo wees te bari ñoo xam ne meloon na ñi yow ci xemmeem ko waaye bañ ko sooboo bañ ko sooboo amuñ ca ndam kon boog yow li ma lay digal mooy kon li ma leen conseillé mooy nga bañ caa ndax su ko da koy def ndax Sëñ Tuubaa moom du du wuuteeg ndigal yéen si renseignement kon damaa bëggoon rek nga ginnaaw la des ci nga takk ak xut bu samaan bëriwul ñeenti weer rek la baa ma takkal la ko léegi te nga bañ a sóobul yonent ah, Sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu xamal ko ne ko su fekkee ruux gi ruux moom moomu ko yàlla ci loxo yàlla nekk waaye fekkee ne ruux gi mi ngi rek. ma sama jom ak sama ngor ak sama ngëm yàlla attan lépp loo ma tegoo mu tegoo ko foofee la signante contrat bi nga xam ne moo dox digganteem ak suñu borom ñu signante foofee nga xam ne looloo waral tukki bi mooy yoonu géej gi taw ni ko Moussa ko waxee rek bu ko tukkee bi kon wolof nasraanu te kon billaahi ñëpp di niiraanu moom Sëriñ Tuubaa ci boppam daan wax sax ne tukki bi su amutoon wal xiyaasu billaah tukki sawee adduna sawee murit sawee l'islam tukki boobu nag contrat bi nga xam ne moo ko lii ak boromam mi ngi ko signé ci weeru koor fii ci nga xam ne mooy daarul xuduus ci jàkk jooju nga xam ne tey tabax nañ ko ne ci gën ñu gën ko siiwe ci ay jamono jàkke sëñ Mbàkke Madina te mu nekkoon foofu ndax moo ko njëkk sëñ Mbàkke Madina ko njëkk dundal ci ndigal Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke kon loolu tam bokk na ci jagle yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala jagleel na ko sëñ Tuubaa ci weeru koor nga xam ne contrat bi nga xam ne moo lal yoonu géej gi te yoonu géej gi ci la muccub tey ëllëg nekk sababu xaybati an allah araada an amala min hujaa wa an akoona xaariban fi dawmi wa an akoona saafiran li xawmi loolu contrat boobu nga xam ne moo waral loolu contrat bi ñu ko signé ci weeru koor ci foofu ci barab boobu moo waxoon léegi kon loolu tamit ci ay jagleem la bokk radiallahu anhu yàlla ñu ko yàlla fayal bi ci des tam bi demee ci géej gi ba ñëw moom Sëriñ Tuubaa radiallahu anhu bi mu toogee ñibbisi jaar ndar jaar barab yi mu jaar yëpp ba Daaru Salaam ba ñëwaat fii ba niñ ko fi jëlee waat yóbbuwaat ko Mauritanie bañ ko fi yóbbu Mauritanie itam booba liñ fi xalaatoon ñoom mooy xëy na bu gis buñ gisee Cheikh Sidiye boole moom Cheikh nit ku xong la moom nit ku ñuul la dina am complexe ba xëy na nit ñi dañ am complexe bu buñ gisee nit ku xong xëy na duñ topp duñ topp nit ku ñuul loolu lañ ci jublu woon moo tax ñu boole kook moom Cheikh Cheikh Sidiye itam moo laajoon tubaab bi xamal ko ne ko kii kat amul lenn loo xam ne li ngeen koy jiñ def na ko waaye nitu jàmm la nitu diine de nit koo xam ne nii dara itteel ko lu may fexe ba lislaam dund waaye du nitu ay loolu mooy euh, mbir mi waaye sëriñ moom ndeke loola doon doonutoon la xew la xew mooy moom dafa wax ne tukki boobu noonu noonu ko ñi ko nit ñi gisee demeewul ndax dafa wax ne man sànn sayri ribbaama aksasin misla masiri rasahaama jeesasin sabbada kawnuhu juhulan xumra bal huwa tatyibul alili umra nee na képp koo xam ne yaakaar nga ne sama tukki bi mu doon tukki ci géej gi Gabon ci xaama jay moo sama tukki bi ma tukki nii dem Mauritanie ci xaama ak sa sin ñoo yem xamal yow dof nga tey dëgg dëgg euh, sama xel dafa lëndëm sama tukki bii ma euh, tukki lu dara lu may loo xam ne yàlla moo ma ko nara moo ma fa nara faye ay fay yoo xam ne pay yu mag la mooy ay daraja yu rëy rëy yoo xam ne nekkoon na ci ay loxo yu góor yàlla yàlla ma liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéeyal góor yàlla yooyu ba yàlla teg ko ci sama loxo ma war koo jëli loolu rek lay wuti murtani waaye wuti mu fa leneen képp ko yaakaar ne leneen laa fay wuti wala tukki ñoo yem képp tubaab bee may sànki rek loolu kon njuumte la kon ba mu fa demee nag ba ci atum ñaareel me ba mu fa demee ba ci ba ba ba ci bak sasin foofa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu feeñooti loolu tam ci weeru koor la amee woon la yàlla ci ndigal la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yonent bi feeñu ko ko fa fay jox lu ñu tudd al wirdul maquusu min allahi tabaraka wa taala bi waasiti bi waasi rasuli sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla joxe al wirdul maquus loolu tam ci weeru koor la kon wirdu murit tam yàlla mi ngi ko baaxee kii di radiallahu anhu seyxuna suñu sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba ci weeru koor ci Mauritanie kon ngeen gis ne sëriñ bi fonk na weeru ko dundal na ko euh, jox na ko gëdd daan ko joxloo taalibe yi gëdd waaye gis nañu tam yàlla jagleel na ko ci ay yu baree bari wérdu ma xus ko ñu xam ne muy wér bu am solo nga xam ne itam ñu ngi ko jote ci euh, Mauritanie ndax ki mu ko njëkk jox di ku ñuy wax euh, Moustapha Ousmane dafa wax moom sëriñ bi tabaraka wa taala radiallahu anhu dafa wax ne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 كما أحسه من الله تبارك وتعالى بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم مناما لا يقصة مناما لا يقصة في عام بأكس من حجة النبوي وعلى صاحبها وعلى صاحبها أبقى صلاة وأنفح تسليم في موده يخالب باستفسارة في شهر رمضان المبارك التي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al-mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin sëriñ bi ne képp koo xam ne gis nga bind mi bind nanga xam ne kat ki ko bind di Ahmadu Mbakke dëkk Mbakke eh, juddoo fa waaye itam dëkk Bawal man maa ko bind te digal naa kat ki nga xam ne mooy eh, Moustapha Ousmane mu jëfandikoo wirdu wi di wirdul maxuus te jox ko ko soob ni ko mi ko jëlee ni ko ni nga xam ne noonu laa ko jëlee man Sëriñ Tuubaa ci yàlla directement mu jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag mi ngi am ci ama baksasin te mooy atum ñaareel ma ca muytana jë te itam maa ngi ko ci barab bu ñuy wax sarsara te it ci weeru koor laa ko amee ci weeru koor bi nga xam ne ci la yàlla wàcc alxuraan kon gis nga ba léegi jagle yi nga xam ne yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala mi ngi koy jagleel kii di kii di Seexul Xadim radiyallahu anhu kon yu baree baree bare yuy xew ci yoonu murid wax naa la sànq na ci la yoonu murid taxaw wax naa la sànq ne la ci la contrat bi nga xam ne moo lée woon sëriñ bi ba tax sëriñ bi dem ci géej gi te bu yoon woo amutoon dara da ko ci contrat boobu ci weeru wax naa la tamit ne la weeru koor tam ci la euh, sëriñ bi jot euh, we lii di werdu murid ñu koy wax al werdul maxuus tamu jotee ko ci Mauritanie am baksa sin ci bërëb bu ñuy wax sa saara waaye itam ci weeru koor tam bokk na ci li ci yàlla jagleel sëriñ Tuba radiyallahu anhu ci weeru koor tam la sëriñ Tuba radiyallahu anhu bindoon wax ne كبيرو كوري لما يالا جوخي كون فيا كون لون نك واخ دي ري لا دي ام صلا موي دراجي بو ري ري سون بروم رضي الله عنه واخ فاجاني فاجاني برمضان الاعظم بكون وباسم وباسمه العظيم الاعظم يالا بتنا ما كي ويرو كور جوخما اسم الله اسم الله العظم واي جوخما تام كون فيا كون لول تام نينكو جوري تي ويرو دال ني خول ني li ci sëriñ bi am ci ay jagle bari na lool yaakaar naa ne eh, kun fa yakkoon daraja gënu koo kawe kii suñu borom tabaraka wa taala jox ko nit dégguñu ci ay nit yàlla yu bari ñuy wax ne suñu borom jox na leen lool moo tax mu wax ne yaquudu lii kun fa yakunu lil jinaan maa chitu baaxiyan bi juudin wamtinaan yàlla nag tam matal na ma ci kun fa yakkoon moomu yàlla matal na ma ci lépp lu ma sob loolu day des tab ngir tabam gi moom suñu borom tabaraka wa taala ci kun fa yakko na ma yàlla di wam mata lépp luma ma sob ndax suñu borom moko ko jox mu hal sa muhaqqaqun bil irtiyab wa fustu fi sihab wal iyab limu wax nak deug la amul len lu ci sik sak nek dam bi may dem ci géej gi dafa melni su don auto la ñu yapna wa bi may ñëwit yapna moy kon dem gi bénéfice la retour bi bénéfice la motax muna li salbal yumna wa ma li ila al jinan fa'ikhan muhtara yàlla rikkil na ma barke ak lam ma tànnal ba àjjana ba àjjana te loolu mu ma tànnal tànnal nag mu suñu borom tabaraka wa taala moo kawee lépp lu keneen tànn kon mbokk mbokk yi lii rek lañ doon waxtaan waat tey ci xaaj bi ñu indi woon ci Sëriñ Tuubaa ak ay jagleem ci weeru koor gis nañ ci la weeru murit taxaw gis nañ ne ci la contrat bi nga xam ne moo dox diggante borom ba dem ci géej gi liggéey liggéey bi ci la taxaw ci la jox tam ci la ko yàlla joxe ci eh, dim ci ci ci ci wasati nabi sallallahu alayhi wa sallam al wirdul waaye itam ci li ko yàlla joxe kon fa yakkoon ak yenn yoo xam ne xëy na waxtu yi duñu ko may waaye ay jagle la yu ko bari kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te leen siyaare bu baax te wax ne yeneen émission yi ñëw incha allah danañ wax euh, waxtaanee itam xasida gi nga xam ne moo di euh, xasida ak yaa xayra day seen ci émission yi di ñëw incha allah loolu lépp itam ñu ngir la xamele ci sëñ من فوق اندي يعني لي يالي افم كوتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا ايها